Thank you. ñëw fii si open press Papa Yade bi ah euh, supporter Papa Yade da si am kenn kuñ tànn waaw pour ñu wax ñu euh, nu mu gisee Papa Yade état bi ak préparation bi quoi alors. waaw bon ñu ngi leen nuyu di la siyaar bu baax a baax di gërëm supporter Papa Yade yi fi teew yëpp saa nag comme ni mu ko waxee woon rek liggéey na li mu war a liggéey li combat la comme yeneen combat yi boo xoolee sax ñoom ñaar nduróowuñu sax palmarès mais xam nga da nek mbër mo xamantene du teggi ben moromam kep ku taxaw ci karam rek wa dañuy jappale mo la man da lay ñëw dóor daan la wa te drapeau Tëngéej lay demee ñu ñaan waa Tëngéej jëm ñu ñew jappale ko inshallah combat bi combat bi du yomb de non du yomb parce que combat bu yomb ñu soxla wuñu ko essay ñu toll ni dañ nek suñu buntu làmb wa combat bu yomb soxla wuñu ko quoi ah, waa waji waa ji nee na waa la ba doole de bu dé bëre mo la ko tax ah day wax lu ko neex rek gis nga gis nga saay ni muy bëre ay combat am combat mi bëre yëpp gaay lañu jox favori ñu muy bëreel waaw te ñi mu bëreel ñëpp daan leen moom moo moo moo nekk mbër moo xamante ne moom moo leen njëkk a daan. Mhm. mais yéen waa Guédiawaye ni ñuy waajee combat bi est-ce que yéen noonu demee fii nii Tëngéej. noo ñoom ni ñu ko waajee rek ñun waajee nañ ko nu ko raw billaahi barki sëñ Tuubaa. Mhm. Ah. waaw pare nañ si côté yëpp. ah mais waa ji euh, soxna si mooy Ndeye Gueye ak waa Kër Ngaye si jàpp bu baax a baax waaw waaw ñoom yaakaar nañoo am ay jàppale ñun sóoruñu sax ne ko wut. waaw jëkkëru Ndeye Gueye la ñu sóoruñu sax yooyu noonu ñun suñu combat lañ si xaar moom dina ñëw bëreex moom dóor ko daan ko incha allah te du ah, lay demee saa ay combat am yëpp noonu lay demee. waaw ñuy bëreel ñëpp noonu lay bëree. mais Papa ji Papa Boy waaw waaw daa Europe mais garaawul ñun fii am tëngeej lépp luñ am waa tëngeej lañ koy bokkal incha ñu ngi tëngeej liggéey li ñu war a liggéey fii daan liggéey ay combat am yëpp di am ndam te fii la ni ko liggéey incha Yàlla kon mu ngi noonu wa wa ñu yow wa Tëngéej jëm ñu ñëw jàppale ko waa Jokul Dangu Tëngéej yëpp daal ku lim da ngay jëm wàllu violence bi nag loo jëm non non ñum santaw ñu kenn pour violence non non ñum li ñu yóbbu loolu esaat dañu dem suñu mbër daan ñu dem ñibbise waaw parce que ku wóolu sa mbër yaakaar naa ne waroo mën a dugg si yenn yi quoi wóolu nañ suñu mbër xam nañ li mu liggéey booba tey ñu ngi nekk ak moom xam nañ li liggéey bu baax baax dinañ ñëw dóor ko daan ko incha allah waaw jaajëf Barou jaajëf supporter Papa Yada waa ji xam nga waa ah? waaw waa ji dañ koy laaj moom lu mu xam ci combat Papa Yada bi. waaw waaw lu ma si xam moom mooy Papa Yada daal instant yi pare na quoi te defe naa bi du combat boo xamante téye neen ko 100 pour dañuy jaar jàll kii taxuñoo jóg quoi ñun ni ñu jëlee roi des arènes la wax mais pas booy bi. li nga wax ma na ah li ngay wax yomb na trop noonu la fa demee dañu xam mbër mi ñu yor papa yadda rek si faraate xale bi am fit bu am doole mën a bëre mais noo gisee waaw waaw mu ngi si état mu ngi si état bu baax a baax sënt sënt bii ne daal papa yadda sënt bii ne faraate frate buuna frate buuna luptator forte buuna are putare mare are putale mare li nga li wax ni mooy lan waaw mooy euh, Papa Yade mbër mu mag la dafa mën a bëre làmba ji bàyyiwuma kenn ay Balla ay Modou Lo ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn moo leen dàq bëre ñoom ñëpp te moo leen ëpp fit moo leen ëpp doole booy bi taxuñu jóg waaw. ah booy bi am na doole dafa doon Europe Europe la demoon de en plus booy bi dafa am jàppale ko ah mais jàppale bi mënut a weesu talent booy bi am na talent am na doole làmba ji talent la ak doole te su dee affaire de sëriñ dafa pare mystiquement mystiquement dafa pare. booy dina ko jàpp dina ko dóor dina ko daan. waaw ah, kon baax na. waaw ah, ñu yàggagum incha allah dimanche kese la waaw. waaw waaw tey yu bees. wàllu euh, nag loo ci wax. non ñun waaw non violence. te ngeen moom non violence instant bi la ñuy dawee esprit yëfi professionnel la ñuy daw instant yi jàpp daan dem ñibbi. Papa yaa de tey yu bees forte Modou Lo imi platé de tiine te ngeen bëgg neen ko ñëpp bëgg neen ko gis nga mbooloo bi mu am. Mm-hmm. bés buy ñëwal làmba cent car la indi cent cent cent moo fi ëpp supporter actuellement te ngeen. cent car lay indi si ba ji waaw kooku moom laa am lu ma si wax waaw jërëjëf yow taw feex ah? ok frate multu ah? mees tey mees <laughs> jël daa ñaaw de jël la sa jël la waay waxal yow yow bismillah fala yow ase gulan nga mbay ba tey ñu supporter ah? ñu tal waaw di nga moom lu mu gisee combat bi waaw combat moom liñ ko mooy maanaam sama booy bi laaj naa ko maanaam nee naa bu doon yow nooy def mun ne ma xanaa jàpp daal ñibbi comme maanaam loolu lañ ci ñàmbaas rek quoi te xam ne pare nañ si combat bi booy boo ko xoolee xam ne mu ngi ci forme te nun yàgg nañ bëggal quoi chaque instant te moom bu arbitre bi bu mën nañ see ñibbi parce que xam nañ li ñu yor. mais loolu li ngay wax ni yomb na trop trop trop. waaw parce que dañ dafa liggéey dafa doon suñu booy bu liggéey ñun xam nañ maanaam ñu yàgg nañ ci làmba ji ay amateur lañ ay làmbaloog lañ sax la ñuy wax. Wah, mais li ma la mën xamal mooy combat bi ku yéex doo gis jël bi. moom waa mais waaye dafa demoon Europe préparer combat bi de. dafa demoon Europe mais nu nuy gaal seen digg rek la maanaam amaguñu fi combat bu ñu jaral sax ñu dem Europe. parce que waa bu fekkoon dañu dafa am benn niveau bi day jar ñu dem Europe quoi mais namul niveau boobu fi lañ koy réglé fii. mais noo gisee xam naa cocc cocc. non lañ ah. li ñu lañ mais forme sama ye waaw man instant bi law la cat maanaam macha allah sa la laf xaar bes ba. mais Papa. parce que li ma si gën neex dama nek sama champion. yow bu doon yow la ngay def mu na ma jappo daan ñibbi lolu rek doyna mais Papa neena bu waji taxawé combat du yàgg neena na Papa taxaw combat du yàgg. manam ku sa gémmañ xonq do wax jàmm instant bi mu ngi melni ni nga door ben xalé ba ñam xonq lu mu lay wax ay wax ju ñaaw instant bi ni waji fofu la tollu dañ koy baye wax ji rek. ñun xam nañ ne suñu booy dinañ dinañ bëggal parce que yaakaaroon nañoo bëggal. mais mais mais wàllu violence bi nag loo ci wax. non violence moom buñ ne lébu moom lébu am xamul violence amaana lébu dinañ ko tooñ mu tooñ ñar bi waaye ñun yàlla bu ñu kenn tooñ yàlla may ñu dem rek jël ndam lu sedd àndax moom jow mais gune yi ñuy àndal moom dinañ leen canaliser ba coow du am. mais Papa Yada moom Papa kan moo dàq a bëri. waaye loolu mooy géej gi am na Papa Yada ah Papa. du combat sax xam nga instant bii nii maanaam dañ koy dañ koy bëgg boole si kuy bi rek boole ko si lim bi quoi lim bi suñu suñ defee di lañ ko bëgg a wañaale rek dañ ko bëgg a dool may palmarès may ko bës yow taw tawfeex après mooy loolu ah? waaw waaw ah? dinañ ko waxaat laay la la la Claro. Tá? 放了他放了他了 Thank you. jëm si le 4 euh, le bi ñëw ngay bëre Papa Boy Djiné yow lan wax ñi xam ne ñooy waa Tëngéej. waaw bu laa wax nañuy nuyu waa Tëngéej wax bisimilah bisimilah inna wari yàlla jërëjëfe borom Touba ngir Tëngéej dañ leen di ñaan waaw am ñu jàppale si combat bu ba ñu si ñaan di leen nuyu bu baax waaw ah, di leen jaajëfal. waaw ah, dama gis benn secret quoi dama gis euh, Papa Yada di bëri nekk xale. ma gis ma ngi ma ngi tëng jëb grand yëpp ñëw génne lan la quoi secret lan la quoi waaw loolu yar la rek yar la rek dañ fi nekkaa sunuy mag ñu tooba sunu ginnaaw su mel ne ama neex doomu champion yëpp jóge fu ne bu ñu limee dañuy juum di jégalu parce que man ainsi nii parce que lii sas la rek lii sas la day day yokk jom nit daal du dara nag lu ma lu ma lu ma def seen kanam mais lu ma liggéey seen kanam la rek loo xam ne nii cër la daal ñu nekk feex ñoom xam nga gis leen ñuy def aar ñu topp seen ginnaaw man ñu dara yàlla rek a man ñu topp seen ginnaaw daal ay doon ay xale yu ndaw waaw. ngay bëri papa boo jëne si loolu ban ban yëg ci am. waaw papa boo moom moo taxaw laaj na man taxaw ma laaj rek moom moo taxaw ne papa Yade laa bëgg a bëre waaw te ndaw la man tamit ndaw laa ñu xam ne ñaari junay bi boole yoon na daal. waaw ñun daal li ñuy ñaan daal dañuy sabablu si yoon lañ ne yàlla buur bi rek a man moo man moo am doole moo am kàntana moo am lépp moom la ñuy ñaan yàlla nañu yàlla may ndam lu sedd guy si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam espoir la. ndax yaa ngi pour bu la maa ngi. waaw ku fi dëgg wax ay doomu daangoo ay ama neex ay diis ay Ronaldo xam nga ay gàmbu gay ñëpp kon xeex war la mën a jaaxal waaw parce que ñun taatu pere baa ngi ni boo xulee géej ngay gis. boo nekkee gune da ngay fasu ndox mi da ngay ñu du la dóor te dóor foo ko dóor nit mu saf waaw ay xale lañ papa Yade tamit waaw maa ngi koy nuyu moom tamit di ko ñaanal yàlla na yàlla seral ay ay yaxam yàlla na ko yàlla yàggal parce que paa bu baax lii lépp papa Yade la papa Yade moom dama koy ñaanal rek wàllu xeex moom travail nañ si war a travail suñu boxeur ku mel ni laay xam nga ay baabu kale ay idi xam nga affaire yooyu noonu waaw pare nañ daal fépp. daal lam moo si def yàlla suñu borom la ñuy ñaan ndam daal yàlla nañ may ndam lu sedd guy mënuñu dara yàlla rek a mën ay xale lañ dañuy sabablu. bi. Hmm. xam nga la mën a yóbbu ci làmb. waaw bu ma ko gañee loolu garaal fu may yóbbu si làmb parce que ñi ma daan ñu ngi bëri ay grand combat ay champion laa daan si làmb ji Papa Djiné du moom moo may yóbbu faneen ak faneen loolu garaal làmb ji xëy na nag cool yi moo bëri rek waaw parce que ay guna lañ daal maanaam làmb jànka waaw Tëngéej daal am naa si yaakaar moom daal moom on a borbale pour ñu jàppale man maa ngi woo sama mbokku lebu yëpp ak sama mbokku séeréer yi bàyyi ma dara su du ma wax mbuur séeréer waaw sama dëkk papa maa ngi leen woo bu baax a baax a baax a baax waaw naa si yaakaar daal te yàlla ma yàlla may ma ànd seeg samay mag nag mu mel ne ay jibi ñu waaw ñu jàppale bu baax a baax a baax ñun man dara ñun ñu wër nii ñoo si gën a nekk ay ndaw mais xëy na xam nga. yar bu ñu leen wan quoi moo tax amaana sax xam nga ñu teewal ñu defal ñu lii mais amaana bu ñu doon ñoddi da la leen waaw loo xam ne nii daal du yaru wala dara kon du ñu faale. mais xëy na li ñu ñoddi seen kanam nag moo tax amaana ñu waaw. Paa Boy Djiné dafa demoon Europe préparer combat bi quoi teew gis yow demoo loolu lu mu mais loolu borom rek Europe moom moo bëggoon man namu fii kenn namul Europe fii ku bëggoon dem Europe na dem loolu garaawul loolu méttiwul mais dem na waajal na dooleem. xam nga liggéey na def na lépp macha allah. yàlla na ko yàlla daal mais gis nañ ko dafa am doole dafa doole bari sax. voilà yor na doole yàlla na ko yàlla kàntanal xam nga mu ñëwaat dooleem rek incha allah bu ñëwee man daal bu ñu wéetee si géew bi lu ma bëgg lay def bu soobee yàlla. nee na man bu ma taxawee du yàgg. waaw loolu moom du ma si tontu parce que ñu bëri seetaan nañ samay combat ñu bëri ay ama ne dañ may yeb na amaan defal nànk waaw kon loolu garaawul quoi ñu ko ñu ah yàlla daal moo xam yaakaar naa ne mu gaaw yaakaar lu mu laaj rek bu jour ba liñ ma liggéeyloo rek liñ ma liggéeyloo laay ñëw appliqué rek bu fekkee damay laaj dem may dem bu fekkee dafa laaj taxaw ma taxaw. parce que moom nee na du la may fu ma naanee ñeex. nee na du may fu ma naanee ñeex. waaw loolu loolu day mel ni géej gi rek am na ndox wala amul ndox. yàlla baax na man daal yàlla moo mën lépp maa ngi oo sama mbokku lébu yëpp ñu jàppale moom ma bàyyi ko si micro mi wax rek. waaw kuy liggéey ak kuy wax bokkul daal bu weer dee nañ xam ko mooy fayeeku waaw yàlla nañu yàlla tantanal rek wa limay toje damay wo wa tengé ci combat bi soxla na seen ñaan bu baaxa baaxa baax di wo wa Bargny sendu Ñaling fuñum sama dëkk ma lan dem di bëre ji dëkk séré du mel fuñum wa di len wo di wo wa Mbaaw ñi di fukki penc ak ñaari fàttewuma len ñu ñew jàppale ma suñu ma waa ndayan